xarit yi seetaan ak euh, déglu seen euh, rajo télévision bu Walfadjri euh, dalee nag jàmm ci seen émission sorti comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi bi la yoon nag sortie génnee feneen maanaam daal teg fii ab figure boo xamante ne dinañu mën a jukki lenn ci suñu démb ngir ñu gën a mën a xam waaye itam comprendre bu baax lii suñu nekki ni tey nekk nag El Hadj Ibrahima Masseck Diop waaye itam di écriver enseignant bëri na daal loo xam ne doon na ci kasket ñu war ko mën a waxtaanee ak moom ci seen émission sortie euh, El Hadj Ibrahima ma ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. Euh, jërëjëf Ndeye Fatou maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu Sénégal gépp ndax Sénégal gépp la bokkal di nuyu sumay militant yi nga xam ni maag ñoom a ànd di nuyu waa jaspora bi ak fu ñu mën a ne ndax ñu bari ña nga fa te ay mbokk lañu ñu ngi jóge Kajoor ñu jóge Bawol jóge Sénégal noo ngi nuyu itam le chef de l'État ak Macky di nuyu jabaram c'est un ami Macky est un avant mu nekk président de la République parce que bi mu nekkee intérieur di dajale parti yi foofu lañ xamee waaw. sa xarit boobu yaa ngi koy gis ba léegi. gëj nañu gisee ndax saa yu ma joxee rendez-vous mu am lu ko dindi. moom mooy décommandé. Euh, je ne sais pas mais en tout cas su ma joxee rendez-vous mu dañ. Mm. waaw mm-hmm. waaw. loolu nag xaw xaw na ma jaaxal waaw. sa parti politique di RDP Rassemblement démocratique populaire xam naa waaw na bu la neexee waaye Walfadjri de bi ñu nekkee fee ca. Sacré Cœur. Sacré Cœur. Mhm. dama faa dem dema dema dem defe naa dem naa fa lu ma fukkiyaat defe naa ni de ñu soog a ñëw fii. Mhm. waaw di dem si waaw sa tànk ci waaw waaw waaw waaw ndax euh, xam nga daf li gën mooy nit ki nga bëgg a àndal ak nit ki nara ànd ak yow. Mhm. ngeen yëgoo déggoo. Mhm. moo gën ngay génn di wax ay wax yoo xam ni taxawul. Euh, comme font certains politiciens. wax wax yoo xam ni amul bopp amul genn da ngay wax loo xam ne lii ku ko dégg xam ne lii wax yu wóor la. RDP mës na dem élection. Euh, j'ai déposé deux fois. Mmh. mais y a un problème de y a y a y a des problèmes y a des problèmes. Mhm. te man bëgguma defantu bëgguma def lu ko matul. maanaam. dama bëgg bu may dem ci élection ma am pourcentage boo xam ne bii dana dana ma neex mais bëgguma rek tëb dem parce que d'abord un parti euh, bi may créer parti on n'avait pas besoin de tout ça parce que quatre-vingt-quinze dafa yàgg mais actuellement il faut beaucoup d'argent parce que booba les gens avaient gardé encore booba nit ñi mm. booba melaguñu nii mais léegi pour nga yëkkati leen pour ñu wut si la il faut de l'argent bu jëkk amul foofu il faut nga <laughs> ñëwaat ci quatre-vingt-quinze nit yoroon nañ ba yëkkati leen yomb na mais deux mille dix-huit <laughs> yoratuñ moo tax kenn mënatu leen yëkkati waaw kenn mënatu leen yë loolu mën a nekk kenn mënatu leen yëkkati. ndax euh, pour nga yëkkati leen daal. Hmm. il faut nga am euh, il il faut nga am de l'argent. il faut nga am de l'argent il faut nga gànnaar situation boobu ci sa gis-gis parce que ñoom dañu wax ni ci biir danaa koy dégg. ci biir euh, leen ndanu politique bi ñu ni lagetu kese naxu li béy. Hmm. alors bu duggee ci politique nag xam ni tout est ku ko créé nguur yi fi jot a nekk. wala politiciens yi wutali askan wi. waaw dama defe ni dama defe ni ñaar yëpp ci la parce que man fekke naa Lamine Gueye Senghor fekke naa Mamadou Dia fekke naa la loi cadre fekke naa bi ñuy laaj indépendance fekke naa li ci tubaab yi def mhm. loolu fekke naa fi mhm. ba tax na pour nga mën a créer parti dañoo faussé au départ parce que parti xaalis laaj xaalis bokku ci mais dañ cee dem ba nga xam ni léegi nit ñi ci nañ ko boole. Mhm. boo yorul xaalis boo waxee duñ la dégg boo wootee duñ la wuy si il faut nga yor xaalis. Mhm. waaw. d'accord. Euh, donc boo tax parti bu tuuti amul. Mhm. parti bu tuuti amul parti bu yorul xaalis moo am. <laughs> loolu de leer na moom waaw parti bu tuuti amul parti bu yorul xaalis waaw parti bu yorul xaalis mais bu daal di néewal waaw waaw mooy mooy parti bu tuuti amul parti bu yorul xaalis mu am mais bu yoree xaalis rek nit ñi ñëw yow sa bos ci ban côté la bokk man sama bos parti la boo xam ni ñi ma àndal dëgg-dëgg waa démb la àndal te ñi ngi ñi ngi ci jàpp bu baax mhm. parce que boo duggee Kajoor dugg Bawol ci ndakaaru gi ñu fi ñëw jóge Kajoor soo wootee ñu wuy si la mais boo demee bay poser sa candidature dafa laaj nga def ko ci anam yu wóor te bañ a nax nit ñi wala nga bañ mbubboo nit ñi wala nga bañ a mbubboo sa parti pour def yoo xam ni euh, bokkul ci politique. Mhm. loolu man li ma gàllankoor. ñu teg foofu suñu baaraam ci politique. daan ci dellusiwaat. waaw ak actualité yi. waaw euh, mais ñu ñëw ci euh, li nga xamante ne bokk na ci ñuy waral euh, émission bi. waaw muy nga bokk ci njabootu koo xam ne ku juddu Sénégal wala képp kuy sénégalais xam nga ko dégg nga turam donte dundoog moom fekkee woo jamono muy Lat Dior Ngoné Latyr Diop nga bokk ci njabootam lajoor ci gàttal lan lañ mën a jàpp ci figure boobu noonu. waa xam nga Lat dafay nit koo xam ni dafa teel a génn dafa teel a génn dafa teel a génn mm-hmm. dafa teel a am idée boo xam ni euh, ñiy dawal léegi mm-hmm. ñi ngi koy tudd mais dafa teel a génn ndax su fekkee ni euh, Nelson Mandela indépendance la doon wut ñu tëj ko war a mat vingt six ans Mao Zedong indépendance la doon wut ñoo ñëpp seen euh, Indira Gandhi ah Mahatma Mahatma Gandhi indépendance la doon wut mm-hmm. bàyyi fi tur ñi ma la yëpp bàyyi nañ fi tur Gandhi moom ci jàmm la ko bëggoon ci ja waaw moom contre la non violence moom ci la la non violence tubaab yi rey nañ ci lu bari mu toog ne moom noonu la non violence lay def mm-hmm. mais liñ ci rey ci moom bari na liñ rey ci moom bari na Afrique du Sud c'est avec la violence qu'ils ont combattu ba bi Nelson Mandela di génn ñoo ñëpp Lat Joor leen jëkk génn ci jël fetal xeex ak envahisseur xeex ak ñi fi tubaab bi fi ñëw waaw ni dañuy coloniser Lat Joor moo leen ko jëkk def mm-hmm. Lat Joor moo leen ko jëkk a def gisuma ku ko jëkk def Lat Joor mm-hmm. moo jëkk jël fetal jëm ci tubaab yi ni day xeex ñoom pour ñu génn réew mu def ko fanweeri euh, juróom-benn ñaar fukki at ak juróom-benn dix huit cent le vingt sept octobre dix huit cent bi mu daanoo quatre vingt six ci la Kajoor soog a dugg ci France mais Kajoor France mosu ko coloniser France mosu ko coloniser bi ñu egsee quatre-vingt-six Lat Joor daanu ci la ñu coloniser France mhm. loolu na leer ndax dafa am jàngalekat yoo xam ni dañu jàng ba pare te duñu jàngale loolu seeni élèves te loolu dañ ko war di jàngale élèves yi loolu kay leer na ci xel yu bari ah? tubaab yi mu ngi ñu ngi door a am accès ci Kajoor euh, bi nga xamee ne euh, Lat Joor euh, daanu na daanu na mais doo dégg mukk ñu jàngale ko loolu dañ ko war a jàngale ba nit ñi xam ko mhm. bañ ko boole dans la mêlée ni rek Sénégal mi ngi créé wu 1900 loolu itam am na lu ma ci wax ndax du ñu leen tudd benn yoon dañu naan rek euh, seriñ Diou Serigne Diou Serigne Diou Serigne Diou moo dëgg jamais ñu ni nii Lat Joor xeex na fi te Lat Joor tubaab bi la doon xeexal. loolu loolu kay. te nee nañ ku xeex ak yi. sa jana taxaw na. Mm. am na deux choses am na donc am na deux valeurs yu mu combattre. mi ngi doon xeex pourum réewum libre uh-huh. mais mi ngi doon jihaat pour al islam pour diine l'islam waaw pour diine ndax catholique la doon jaaral yëfar yi la doon jaaral muy moom ban melokaan lañ mën a jàpp ci jëmmam dañu ni ku tuuti la uh-huh. waaw dañu ni ku tuuti la waaw ci jikko façon dañu ku tuuti la uh-huh. ku ku la ku am stratégie la parce que vingt six ans yi mu ànd ak tubaab bi yëpp boo limee presque dëkk bu ne Sénégal la joor xeex na fa ak tubaab yi. fu weesu Kajoor fu dëkk boo lim ci Kajoor tubaab xeex na fa ak tubaab yi mu ngi ñu bindu tubaab yee ko bindal seen bopp laa jot bindu ko. Mhm. waaw donc euh, ku daan ku daan ku daan ku daan dimbali nit ñi la. Mhm. ku bëggoon réew mi la ba jaral na ko bu deewee. ci mu dee mu dee ci réew mi mm-hmm. ndax keroog bi nga xamee ni daf ni tey ma génn àdduna tey tubaab bi danaa leen fekk dana ñu génn Sénégal walla danañ ma rey wala ma rey leen euh, ñu fekk ko tubaab bi jiitu ko déqale moom moo leen moo tax parce que moo def ba fexe ba tubaab bi ba fexe ba tubaab bi jiitu ko déqale Ah. pièce bu mu leen tàndraloon la. ci naka. waaw xam nga daanaka xeex yi mu xeex yëpp. Mhm. moom mooy set fi muy xeexee ak tubaab yi. tubaab yi dañ ko mën nañ ko wër mais duñ ko gis. ma jox la benn exemple. waaw. le 27 la daan mhm. le 26 ci guddi. xare bi tubaab yi wër nañu xamuñu fu ñu ko denc. xamuñu fu ñu denc xare bi. 500 personnes ak xamuñu fu ñu denc denc xamuñu tubaab yi seet nañu am nañu une semaine xamuñu fu ñu fu Lat Joor denc xare bi xamuñu ko loolu day na waar ñu bari xare bi mooy la l'armée ah. l'armée qui fait la guerre ñu ngi ko tuddee xare xare bi ah, xare bi waaw gisuñu gisuñu fenn wër nañu fu ne yone yonee nañu fa ay espion mhm. ku ñu gis rek rey ana Joor mhm. nga ne xaw ma fu mu ne ñu rey boo bokkee ci ñu dëkk ci Kajoor mhm. euh, dëkk ci dëkk yooyu booba ne ana Lat Joor gisuñu ñu rey wër nañ wër mënuñu ko gis te pourtant bi muy xëy ci cinq heures du matin cinq cent personnes yi ànd nañu ak seen i fos yi mu waroon a àndal jëm dëkkale te tubaab bi loolu moo leen jaaxal mhm. pourquoi gisuñu ko maanaam stratège la woon stratège la woon stratège waa stratège ils l'ont dit stratège la woon la woon grand stratège ci noonu jamono moom muy xeex ak euh, tubaab bi ba mujjee wàcc liggéey yan principe moo ko taxoon na jóg ba mu ne occupation étrangère bi na fi jóg waaw il y a eu 33 damel fanweeri damel ak ñett yu yilif kajoor ak bawol moom damel kañ la woon parce que da daan yilif kajoor yilif bawol boo nekkee boo yilifee kajoor yilif bawol damel teeñ ngay doon boo yilifee bawol dong teeñ ngay doon waaw li taxoon mu jóg 33 damel yi ñi ko jiitu dañoo lànk ni tubaab du moom kajoor mhm. bi mu jëmee fekk fi Birima Ngóone Latir magam Birima Ngóone Latir lànk. li mhm. tu ba la Birima signé wul benn traité. Mhm. ak tubaab bi ak tubaab bi. Mhm. tubaab yi def nañ lu ba ma wax la ni la et ça je le dis en français pour que les Français l'écoutent. la France a commis un génocide au Kayor. ban at la woon loolu. 80, entre 1959 et 1886, mm -hmm. ils ont fait la politique de la terre brûlée. loo loo loo dina ca kanam rek lakk ko. Mhm. ay sàq ay nit ay troupeau. Mhm. Euh, semaine bi nga xam ni Lat Joor la Joor fetal nañu fetal euh, na euh, fetalante na ci ak tubaab bi. Mhm. am na 2000 têtes de bœuf yu mu dénkaane woon waalo ñu dàq di ko indi tubaab bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ dañ lépp la ñu rey massacré nangu ko. kon du génocide humain nangu ko. génocide bi ñu def. génocide ils ont fait ils ont commis un génocide un génocide dans le Cayor. Mmh. les Français ont commis un génocide dans le Cayor. mais du ay nit ay mala la woon si ils nañu ay nit taal ay nit muy de dam ñu taal leen. ay nit taal leen taal taal taxawal taal. taal waaw taal. ci guddi bi ñu ñëwee coono ture ngeen fële ñi sant suran dëkk mm-hmm. ci guddi xam ne ñi ngi waaj jëm ci kara bi mm-hmm. bi ñu fekkee seen tur ngeen di julli ana la joon ñu xamuñu fu mu dañ ko rey bi muy julli lañ ko rey mm-hmm. ñu toppan ci moom dañ leen rey dañ leen rey la terre brûlée loolu lañ fi doon lakk lakk la France n'a fait que brûler moom lu ko métti lu ko métti woon ci tubaab yi pour mu génn pour ñu génn il avait déjà il avait déjà dans la tête que nit ku ñuul mën na gouverner boppam nit ku ñuul mën na gouverner boppam. Mhm. gouverner na boppam ay année ay at tubaab yi ne fii. waaw balaa ñuy ñëwaat ci Lat Dior sànq tudd nga Birima te ci sagesse populaire la xaw ma ci waxu chaque jour euh, nit ñi ñu ci bëri dañu daan man maay Birima bu ma waxee ren balaa maa waxaat déwén loolu lu tax ñu koy wax. Birima dafa gouverner. waaw. fekk fi ñu guerde maamam guerne ba noppi. waaw mu nekkoon ci ci ronu maamam. Mhm. mu gis ni maamam doon guerne. dadaan euh, da dajale kajoor ñoom ñëpp. Mhm. kajoor ñëpp ñëpp wuyu. mu génn kajoor ñu ñuy faal mu ni daje ngeen mu ni waaw mu ni la ma leen waxoon daaw laa leen wax ren. la ma waxoon daaw moom laa wax ren mi ci benn baat benn baat ba mhm. balaa wax ren wax ñoom déwén waaw ah, loolu moo indi loolu Kayor ci wàllu kii géographie nan nga ko ñëw bu Mbour boo jógee Mbour euh, Ndiaga ba Njaga Ñaaw Njaga Ñaaw sëñ eh, eh, eh, Ñaaw damee la ko daan fal dam damee ko daan fal moo waaw jóge ak Fatick fatik Fatick Fatick ah Fatick laa waaw da ci Bawol dajal Jugalu ak Fatick mm. nga wéy mm-hmm. nga wéy Patar mm-hmm. Patar ca wetu Touba waaw nga wéy nga wéy nga wéy nga wéy wuti wuti wii di cungool yi wii di cungool wetu gannaaw sagata mm-hmm. wii di cungool yi yi di cungo ci gannaaw sagata waaw mhm. dafa am sagata jolof mhm. am sagata kajoor waaw mhm. sag xam nga la Lat nga juddoo foofa ci kër Amadou Yàlla ca ca wetu sagata kër Yàlla ca sagata foofa la juddoo nga wéy ñëw mu dajale euh, mu mu euh, ñëw ba fii ñuy wax kii njàllaxaar kon loolu yëpp ba bëggee wéy njàllaxaar waaw euh, tase fa nag ak waalo bu jël gànjool gànjool ci kajoor la. Ah. waaw. ci kajoor ah, la. waaw ci kajoor la. dëkku Alburi Njaay. non Alburi jolof la. waaw jolof la jolof ngi commencé foofu. Hmm. wuti Linguère wuti kaw ca kaw. Hmm, hmm. loolu mooy loolu mooy Linguère loolu mooy loolu mooy jolof. loolu mooy jolof mooy jolof kon yëpp la. ci la la waaw loolu mooy jolof. ci la la jor toogoon mooy kajoor. waaw may dégg. Euh, diggante Lat Joor ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba am na lu leen boole woon. ah très bien xam nga euh, nit ñi. Mhm. li naqare ci histoire du Sénégal euh, ñi xam duñu ñi xam duñu wax ñi xamul ñi xamul ñooy wax. bi nga xamee bi Lat Joor jógee na fi dem tubaab bi gañe dafa gañe tubaab bi Loro. rey li ñu yoroon yëpp tubaab bi mer dem wuti euh, dem keroog lañ mas a tiré mitrailleuse ci nit ñu dellu xeexaat looro tubaab bi am mitrailleuse gagné Lat fos yi Lat Joor yoroon yëpp mu rey ko sëñ def xalwa gis ñaari jaan jaan ju xonq ak jaan ju ñuul jaan ju xonq ji mat jaan ju ñuul ji ba mu dee jaan ju ñuul ji dee fekk tubaab bi bind nañ ko lettre ni ko danañ la jox ay ngànnaay nga dal ci kaw Lat Joor mu jël ngànnaaya ñëw fekk Lat Joor ci Kajoor ni ko tubaab bi jox nañ ma ngànnaay nee nañ naa dal ci kaw mais man du ma dal ci kaw boo génnu réew mi nag dañ la rey Lat Joor nañ exilé wu ci lañu ñu seen exil boobu dem fekki ba Jaxu bi mu fekkee ba Jaxu daf ni Mbaba Jaxu Kajoor bari na ay daara mhm. parce que loolu ma la limal sànq ay daara la waaw mën naa lim téeméer mhm. ak juróom-ñett fukk mhm. lépp ay daara la mais dama bëgg njàng ma gën a bari Mamor Anta Sali ni ko négal ba ajjuma ajjuma la ñuy julli parce que Mamor Anta Sali def da doon woote jaar lu bari ña nga fa woon bu ñu tëggee ndënd mi ajjuma dafa am ndënd moo xam ne moom la daal tëgg bu ñuy julli ajjuma comme cloche yi ñuy yor moom am ndënd la woon moo xam ni ndënd mi c'était mystique parce que ay loxo koy tëgg loxoy nit lañ koy tëggee loxoy nit la ñuy ndënd moom bu ñuy bëggee julli mu ne ko bu ñu jullee ba pare Mamat Sall ko bu ñu jullee ba pare nga tànn ci nit ñi nga tànn ñii ñëpp rawuma leen nga tànn ci ñoo mën a àndal kajoor ñu julli ba pare Lat Joor dugg ci biir nit ñi noo sant mu ni Silla mu ni de waxuñu ma kooku noo sant mu ni Dramé mu ni waxuñu ma kooku noo sant mu ni Jóob ñu ni waxu mu ni waxuñu ma kooku noo sant mu ni Jaañ ñu mu ni waxuñu ma kooku ba est ci war Mor Anta Sali ni ko noo sant mu ni ko Mbàkke mm-hmm. mu ni ko noo sant mu ni ko Mbàkke mu téye ci loxo bi ti ko ni ko yow lañ ma doon wax ñu ànd ñëw ci maba ñu ànd ñëw ci maba mu ni maba kii doy na ma kii doy na ma maba ni ko booy dem ànd ak moom bi muy ñëw mu indaale maba ak waa këram indi leen kajoor Mamor Anta Sali ak waa këram mhm. Lat Joor indi leen kajoor mhm. booba sëñ Touba mi ngi am treize ans parce que dix huit cent cinquante la juddu ñu ñëw dix huit cent soixante boo ko calculer treize ans la kon mën nañ ni Kajoor jàng na fa am na lu mu fa jàng xëy na bi muy ñëw jàng na mais Kajoor jàng na fa am na lu fa jàng. toog na fa daal. Joor yor leen. ba ma Maam Mor Sali nelaw. ci la ñu soog a ñu dem sagata ànd ñu nekkee bi ñu nekkee euh, kajo ci biir kajoor ñoo ànd alors loolu loolu moo moo indi Maam Anta Sali àndoon ak Lat Joor bi muy ñëwee ñu toog lu yàgg mu may leen Mbàkke Kajoor hmm, looloo indi Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor ci lewu Ngoone Latir ci lañ ko tibbee lewu debbu sukk mhm. rakki Ngoone Latir d'accord ci la ñu tibbee Mbàkke Kajoor mhm. jox ko Maam Mor Anta Sali mhm. Lat daal di daanu ca euh, bataille de Derklé waaw Derklé euh, jabootam anañu parce que Sénégal tamit fi mu toll nii gis nañu ñenn di jiite ñenn ñi ñu leen di dégg ci peut-être haute sphère de l'État mais dégguñu famille la. mais koo seen koo seen baanaka fukki nit yoo seen ñaari ñaa ñett ña waa Kër la fukki nit yoo seen ci Ndakaaru ñetti ña waa Kër la. ah Ndakaaru. ak Ndakaaru ak fu ne Kaolack ña nga Kaolack ña nga ña nga ci fu ne ah, dañu tasaaroo. seulement dañu duggul ci dara. ndax dama la ko nëbbu bi tubaab bi bi tubaab bi dafa jël otage xam nga otage. waaw dafa jël doomi Lat Joor yëpp def leen otage ñëpp teg dugal leen école bu ñuy tuggee école des otages fils des otages. Ah. waaw. loolu la tubaab bi loolu la tubaab bi def suma ma suma papa ak frère am yëpp ndar lañ jàngee école des fils de chef école des fils de après lañ ko tuddee école des fils de chef mais école des otages la tuddoon. moom la après ñu tuddee ko école fils de chef. tubaab tooñ nañu. waaw tooñ nañu waaw tooñ nañu. <laughs> ci ci entourage yu Lat waaw euh, dafa am koo xam ne def ci symbolique muy maalaw. waaw ndax dafa wane symbole euh, li nga xam ne mooy fidélité. waaw maalaw loo ma mën a wax. waaw maalaw fas la woo xam ni mm-hmm. euh, mi ngi téere bi mu ngi ci téere bi. Lat dafa bari woon ay fos. waaw mi ngi ci biir mi ngi ci boo ko ubbee ko gis. tudd la grande mooy téere bi. waaw. Maalaw. Mhm. Lat Joor liccin la daan war. Mhm. liccin la daan war. mais keroog bi mu demee Siin te doon dem um, ci Maba. Mhm. ñu ni nan jaar Siin. xëy na buur siin mën na noo dalal waaw nu jaar siin waxtaan wa yàqu ba waxtaan wa yàqu Lat Joor tudde fas wa ni sama fas wi toppi naa tur wi maalaw laa koy tudde ñu ne ko lu tax tudde ko maalaw mu ni maalaw au muy rëy na mën a gor au lieu maalaw di rëy au lieu euh, lawbe bi di rëy na mën a gor moo gën mhm. mën a go mën a gor moo gën muy rëy. waaw ci la tuddee maalaw façon boobu. maalaw mm-hmm. def ci Lat Joor ci waa ci Lat Joor loo xam ni lu am solo la ndax ñoom ñaar dañoo àndoon dañoo déggoo. Mm-hmm. parce que bu njëkk boo dee xeexee fos boo déggoowul ak fos wi sa xeex du dem. Mm-hmm. da ngay déggoo ak fos wi. waaw da ngay déggoo. te léegi nga mepp ko te bidon bi nga ñàcc ko mu tëb. mu tëb nga xam fan nga ko jëmale fan nga jëmale fos wi. loolu boo ko bu ko bu wi mënul. fas bi dalay yàqal li nga li nga bëgg def dalay yàqal li nga bëgg def mm-hmm. moo tax fas bi dafa déggaloon Lat Joor Lat Joor déggal fas wi fas wi am courage fas wi da doon fas wu am courage mm-hmm. ndax bi nga xamee ni bii fetal nañu Lat Joor ba tubaab yi di ko wër mm-hmm. yendu fa di ko wër Kajoor dañoo yeewu lu gaaw gaaw ci diggante bi biñ ko fetalee ba ñu xam ne jam nañ ko ci jëbi waaw mu dénk xare bi mu dénk xare bi mu dénk xare bi Sanex Samb li mm-hmm. ko drapeau bangoog ñu jiin kajoor lu gaaw gaaw ndeke kajoor sàcc nañ ko ba nëbb ko sàcc nañ ko ba nëbb ko tubaab bi nag loolu jaaxal leen waa Kajoor ñoo ko jël ñoo ko sàcc ñi ma àndaloon waaw l'armée l'armée mm-hmm. la garde prétorienne mm-hmm. sàcc nañ ko ba de ba jox ko ba denc ba ñu denc ko ñu toog lu war a mat keroog ci vingt sept parce que treize heures fekk na guerre bi pare. ñu yendu fa fanaan fa. nii bu ne ñu dugg ca kenn ku ne ñu woola enquête ana Lat Joor fu fu ngeen ko de anamuuf dafa dem xamu ñoom wóor ñu woon di dee na wala deewul. Uh-huh. wóoru leen. ñu ni du ñu dem. Uh-huh. alors Kajoor fipp nag ne leen léegi nañ ko ca delloo. nañ ko ci delloo nañ delloo xeex bi comme loolu ngeen bëgg nañ ja nañ nañ delloo nañ soxaat fa di delloo jàkkaarloog yéen. waaw ñu ne nag léegi nañu dem fekk nag ka maalaw jam nañ ko fu ne. Mm-hmm. jaw nañ ko fu ne mais daanoogul ñu ne nag léegi dañuy dem boo génnee Dexële ba ñëw ci yoon wi yoon wi xam ni moo jëm Touba. Mm-hmm. Daaru Manaan mm-hmm. amoon na foofu ak déeg bu fa nekkoon dafa am dox amoon na ay garab yoo xam ni amatul. garab yu ñu tuddi ay géej garab yooyu suul nañ fa ay tubaab waaw suuloon nañ fa ay tubaab ndax dañoo ñëw ba foofu ñu daanu dee mhm. ñu suul leen foofu mhm. maalaw ñu jàpp ko yóbbu ko bi ñu ko yóbboo ba nga xamee ni bii mën nañu ni seen na raay bi jaar guyaar jaar ndaan wuti raay ba wuti raay ba mhm. pour jéggi ni dañ koy dugal ci taxaar pour yóbbu ko ndar à un kilomètre ci raay bi ci la daanoo ci la daanoo sedd waaw bëggul jéggu raay bi ci la daanoo sedd mhm, d'accord loolu mu sedd waaw muy Sénégalu démb waaw wax dëgg yàlla am solo lool baaxoon nit euh, ñu fàttaliku ndaw yeeg ñi nga xam ne ñooy génération bu bees bi waaye dañu wéyal émission sorte bi nag El Hadj Ibrahima Masseck euh, Diop ak Sénégalu tey ndax Sénégalu tey nag wax dëgg yàlla am na yu bari yu fi mën a waxtaanee rawatina Lat Joor doonoon kii bañoon euh, résist euh, kii occupation tubaab waraloon muy xeex ak ñoom. tey sur le plan économique maanaam ci wàllu koom-koom tubaab yi foo tourné fekk leen fa ñoo teg loxo sax ci suñu alalu réew. waaw dencal ma question boobu ma am lu ma la wax. ndax dëkk dëkkale. Mhm. defuñu fa dara. gouvernement yi fi jaar defuñu fa dara loolu ñaaw na maa ngi koy wax Macky janoo moom face à fas di ko ko wax euh, si kër sëriñ sépp def nañ fa deux milliards trois milliards la Joor de dégg guma luñ fa def sàmbalaw bi mu ngi tëdd ci Tiwaawoon gaar bi ci Tiwaawoon dañuy jaar ci kawam di ko nappaaje Macky yow lay waxal ah dañuy jaar ci kawam di nappaaje sàmbalaw bi mu ngi ci gare bi ci Tivaouane kenn màndargaalu ko lu tax France di am soixante dix millions de touristes France day am soixante dix millions de touristes par an pourtant seetuñu fa dara Napoléon fan la neen de fan la tëdd Louis XIV fu mu taxoon mais ñun daal Sénégal mi ngi commencé mille neuf sëriñ si defal nañ leen deux milliards deux milliards trois milliards deux milliards Lat Joor zéro Samba Lawbe zéro. ah ak it yeneen figure historique. ci laa jëm si. waaw yeneen figure historique sa Albouri. Albouri Ndiaye. Ndiaja Ndiaja ñooñu yëpp mhm. zéro. Coumba Ndoffène mhm. zéro. Mhm. Maba zéro. li ma gën a naqari mooy. Lat Joor boo demoon leen léegi boo fa demoon dangay ngay waaru da naan déet bu fii la denc Lat Joor boo demoon Tiwaawan Samba Lawbe fa mu daanu ci Tiwaawan boo fa demoon danga naan déet bu fii la ñu denc Samba Lawbe loolu aussi dafa xaw a ñaaw waaw ah, tubaab yi ñoo tubaab yi tubaab ah, yow wax nga lu am importance tubaab yi ñoo tubaab yi bi ñuy dem dañoo bind wacc fii rey nañu seeni maam na ngeen jaar ci seen kaw di leen tifli loolu lañ sant tubaab yu ñuul yi tubaab yu ñuul yi loolu la leen tubaab yi sant tubaab yi ca ya ca Paris li ñu sant tubaab yu ñuul yi mooy rey nañu seen maam yi fu ngeen toll da ngeen sifli da ngeen tifli seen maam yi na ngeen leen tifli mooy vous ne rentrerez jamais dans l'histoire mooy mooy loolu mooy mooy loolu vous ne rentrerez jamais dans l'histoire ndax yéen ñii jàng nu xam ne sunu làkk wii ci ngeen di jàng lu ngeen mën sunu làkk wi ngeen koy jànge na ngeen wax seeni nit di leen seen maam yi doon xeex ak nun duñu dara na ngeen ko na leen ko wax mm-hmm. ci la ñuy wéy moo tax fulaaluñu lu ñu leen moo tax fulaaluñu suñu bopp waaw mënuñu calcul mënuñoo defar mm-hmm. maa ngi gis benn torchon bi bu may rax la sama loxo. waaw maa ngi gis ñu def ci made in Pakistan torchon made in Pakistan. mënaluñ suñu bopp dara dara. alors dégg nga la waaj a wax waaj a soog a falu. Hmm. CPID xaw ma lan. Trump Donald Trump. waaw CPID. xam bu ñu ni noo tax. waaw nañ yem ci dërëg. <laughs> waaw waaw waaw CPID. waaw. Sénégal bokk ci euh, français yi. wax nga dëgg rawatina. wax nga dëgg lépp lu euh, koy moomeel teg ci seen tànk jëkkale. Mhm. dañu am sama benn doom boo xam ni. daf cee def lu rëy ñu koy wax Basiru. Euh, dafa yor benn holding moom mooy Bas Bonilé. Mhm. dafa am benn holding waaw la am. Mhm. mu dem def am na lu fa jot a def. Bass Diop ñoo ngi ko ci remercier mhm. bu ñëpp defoon ni moom lépp dana réglé mhm. ñoo ngi ko ci remercier bu baax a baax a baax a baax mhm. loolu nga wax nag ci sa question bi mën naa ci dellu si waaw muy wàllu euh, tey jii boo gisee français yi lépp lu fiy fulaak fayda ci wàllu koom-koom ñoom ñoo ko moom mooy dama la waxoon rek tubaab bi bi ñu fiy jógee tubaab bi bi ñu fiy jógee dañu nu noo ngi nii du noo ngi nii du dem mais lu nu neex la ñuy def yéen ñiy jàng nag li nu leen sant mooy lu nu def ci lu baax na ngeen ko wane seen maam yi lu ñu def nangeen ko bonal hmm. bu ngeen ci yàggee du ngeen man dara lu nu moom lu nu neex leen fiy def boo seetee li fi ne hmm. ay societé yoo xam ne am nañ fi lu a mat juróom-ñett fukki at juróom-ñeent fukki at hmm. ñoo fi ne ñoo fi ne xale yi duñ ci dugg mënunoo avancer ci loolu la ñu ne loolu moom yàgg na fi te jógu gu fi ndax lu fi ne rek France ko moom loolu moom yàgg na fi jógu gu fi waaw lu fi ne France ko moom euh, ci wàllu politique ñu waxtaane ko ak actualité bi gis nga loi parrainage ak coow yi ci judd ak yooyu noonu yëpp euh, ci wàllu démocratie suñu dëkk bi ñu bëri ne daal am na jafe-jafe te deltu ginnaaw nemeeku nañ ko ci en tant que acteur politique yàgg ci seen politique bi loi parrainage boobu ndax acceptable na xam nga dëkk bi bu fekkee ni fukk dañuy gas ñaar fukk di suul euh, avancement du gaaw a am. Mm. il faut nga am fit wa Mamadou Dia amoon maa ngi fàttaliku sunu grève ba ca soixante ca ca ca Ndar mm-hmm. Mamadou Dia dàq ñëpp ñëpp la dàq. ku bëgg jàng si dangay ànd ak sa doom ñëw signé man sama tuteur yi ma ànd ak ñoom ñu ñëw signé ni dootu grève wala grève ba yem mhm. euh, parrainage bi bu fekkoon di parti yi dañu ni dafa bari nu ñu seet nuñ ko wàññee dafa laaj toog waxtaan Macky toog opposition bi toog ñu bañ ko def nañu defa ba ñu demee pale maanaam dialogue ba ca dialogue ba mhm. ndax dialogue ba ca pale dama yëkkati sama loxo ba dañoo jël ñi bëgg a wax daal ñi bëgg a wax daal dañu leen a tànnoon. ah yow nga fa woon. ah ma ma laaj may bind sama kayit yónnee ko kase. ne bëgg a wax ne dama bëgg a wax. mu jël kayit kase jël kayit waxati ko. xotti ko ma yëkkat mbay waaye ma bàyyi ma yëkkati sama loxo ni màkki mhm. damaa bëgg a wax de mu ne ma waaw baax na dana danañ la jox nga wax jox nañ joxuñu ma ma wax ba léegi joxuñu dañoo <laughs> tànnoon daal ñu war bu fekkee dialogue bu mel noonu fekkee dialogue bu mel noonu la dialogue bu mel noonu day faussé débat dañuy toog taabal séq ko dans le calme et bu ko defoon nit ñi duñu bañ waaye ni mu ko yedoo comme ni Ablaye Wade yenoo woon rek le quart bloquant daal di yóbbu assemblée gaa ya fekk ko fa ni ko di ci dal quart bloquant bi du jàll mhm. bon mu jël parrainage bi yóbbu assemblée gaa yi ni du dem mën na indi na mhm. mais defe naa bu ñu toogoon nga xam nit ñu wóor ñoo ko xelal parce que di ko xelal di ko xelal lu baax baax na boo nekkee buur danga koy xelal lu baax defe naa ni buñ ko xelaloon danañu toog ak parrainage bi dana ci am li mu bëgg te coow du jib nit ñi danañ ko nangu ndax liste yi bari na te list yi li ñuy bari bari bari bari xaalis lay yóbbu parce que nun noo koy supporter comme noo koy supporter nag dañ ko war a wàññi gën koo xeet a xeet ba nga xam ne bii ay quelques parties lay doon yoo xam ni daal vraiment bu ñu mënoonoo dem ba am ay ñetti nit dana baax. dana baax euh, yaa ngi koy wax sànq euh, nekkoon nga jàngalekat euh, am tamit parcours ci wàllu syndicalisme taxawaayu syndicat enseignant yi tey ban jàngat nga ma ci mën a amal. waaw man. man xam nga fi mu toll nañ. mais nee dina dagg. xam nga xam nga xam nga keroog bi ñu toj bourse du travail ci Lamine Gueye te fekk euh, am ministre sengoor bi yoroon syndicat yi ñu woo ci guddi gi indil ko avion ñu toj bourse du travail bi nekk Lamine Gueye fa nu fanaan keroog Senghor nguuru sengoor mu ngi suuf yorul dara. ah oui dara yorul dara yorutul nguur. yéen yéen a taxoon. nun ñu dina ko taxawee ba yorutuloon nguur amatuloon nguur. ñu daal di jëli armée non dafa neen ci ay nit kenn xajul ci dafa neen ci ay nit kenn mënu la ko wax fa la fanaan mhm. mu daal di jëli armee ñu boucler Lamine Gueye Rafanel mhm. Faidherbe ñu ayca mu dagg grenade yi di sànni ci gars yi dëgg grenade yi di sànni ci gars nii la def ba ubbi bur mu jàpp ñu jàpp jàpp jàpp syndicaliste yi man jàpp nañ ma mhm. man de jàngale naa quarante ans mais defe naa ni defe naa ni est-ce que amoon naa cinquante mille aw moon cinquante mille ah defe naa cinquante mille parce que maa ngi bàyyi deux mille mille defe naa suñu indemnité de logement defe naa trente cinq mille daal ci laa ko mujjee dégg trente cinq mille euh, mais bu ñu demee ba am ba am quatre vingt cinq mille euh, bu fekkee ni dara raxu ci raxu ci bu fekkee dara raxul ci soow mi mm. war nañ mën dellu gannaaw bu fekkee dara dafa rax ca soow mi nag neneen lañ koy tuddee. jamono yooyu ak yii du benn. waaw jamono yooyu dëkkuwaay dafa seer. waaw jamono yooyu du ak yii du benn quatre-vingt mille xam nga indemnité logement bu enseignant ëpp na sax deux cent mille ndax dina enseignant li muy daj man yor naa yor naa ba tey cent élèves Pikine mhm. yor naa fa cent élèves. nga xëye fii dem fa sans adem nga nga corriger cahier ci guddi gi sans cahier nga corriger ko mhm. def sa préparation préparation mooy li nga nar a jàngale tey da koy bind da koy bindi li nga nar a jàngale ba ngoon da nga koy bind mhm. pour xam su xale xam ko xam nga loolu boo amul kër doo ko mën mhm. bon quatre vingt cinq mille c'est tout dara bon c'est c'est pas c'est pas de euh, non non attends euh, attends non non non non non sax ànduma sax ak enseignant yi mais quatre vingt cinq mille c'est rien ànduma ak ñoom mais quatre vingt cinq mille c'est mais seulement ñoom itam su fekkoon ni amoon nañu patriotisme tuuti rek ñu jàpp ci bañ a ñu seet. Euh, ñu seet xale yi quoi. foofu lay fi nekkee xam nga am réew soo ko yoree doo def ni croiser les bras rek di seetaan te nag suñu gars yi aussi dañoo bëgg affaire yi patron dañuy toog rek seetaan je confié le travail à Samba Samba ne fera pas le travail Samba ne fera pas le travail j'ai confié le travail à Demba Demba ne fera pas le travail il dit il te dira ce que tu veux entendre mais il, il ne fera pas le travail il dira ce que tu entendre oui, ça va très bien, on a 7%, 7,1%, ça va très bien. mais léegi ñuul ci biir 7 pour cent mais du la ko wax léegi ñuul ci biir liggéey bi du la ko wax alors dañu war dañu war fexe ba enseignants yi ñu seet un une année année boo xam ne bii danañu def lu mag ñu teg ko ci seen loxo ñu continuer liggéey mais li ñuy def nii grève octobre dem ba avril jàng amul nga ne année bi baax na. Mm. boobu année boo neneen lay tudd mais du année scolaire. kon de jàppal ne waaw tuddul année scolaire. année yëpp baaxul ndax. nañ ko. ma ni yi année yi weesu tuddul année scolaire. lan la ane ah, année neneen année neneen la tudd mais tuddul année scolaire. Ah, ah, tuddul année scolaire tuddul année scolaire neneen la tudd. waaw sànq ci euh, portrait bi wax nga ni Sénégal euh, li la ci mooy désordre parce que liggéey bi dafa des. bu la neexee dem bureau bu la neexee toog bu la neexee bañ a def bu la neexee liggéey lan moo tax nga wax loolu noonu. xam nga xam nga boo seetee boo seetee rek euh, benn ma wax la benn. xam nga grève bu juddu octobre dem ba dem ba ki nekk chef d'état mënu ko régler loolu dafa xaw mm-hmm. am une semaine. Mawdiya. waaw du am 3 jours. Mawdiya du am 3 jours. du am 3 grève du am 3 jours maanaam moom daal. da ko jëloon au sérieux. réew mi la jëloon au sérieux réew mi la jëloon au sérieux mais nga toog octobre ba avril rek dara réglé wul nga mën koo réglé loolu euh, nga seet nga jaar nga jaar noo ko réglé rien n'est impossible rien n'est impossible mais wàccu ndem nga xool ñiy liggéey. li nga fëy bu la neex toj fu la neex baas euh, oto yi fu la neex gaare euh, fu la neex son satti sa mbalit booy dem géej doo sol gilet accident yi nag bu pare boo bu paree ni par exemple bu accident bi amee ñu ne état bi ne jëli corps bi fay ko ne état bi jël koor bi fay ko indi ko waaw mhm. bu fekkee ni mhm. yow dëkk nga fu baaxul mu am inondation ñu ni état bi na ñëw defar ko France bis bu ne ñu inondé inondé yàqule boo ñëwee laaj tubaab bi day na ne bu ni oh, c' est un problème de Dieu lu sonal kenn c' un problème de jë mais fii bu wale amee Macky wal Macky tax réew mi wale Macky moo tax réew mi wale waaw Macky moo tax réew mi wale na Macky ñëw defar wale bi mhm. waaw dañoo wale na Macky ñëw defar ko léegi accident yu bëri yi ci yu bëri yi réewane dong la xam nga Arabie Saoudite nan la ñuy def dañ lay wàcce duma lay paxta la ñu yor dañ lay wàcce dóor dóor dóor dóor dóor dóor dóor doo mukk accident biir dafa Arabie Saoudite biir Arabie Saoudite la fa dem lépp doo gis accident policiers yi dañ lay wàcce duma nga yéegaat ñu toog di la seetaan duma duma duma duma duma parce que xam nga xam nga dañoo dugg ci munu fu muy tere muy démocratie démocratie gàll la goo xam ni li tax euh, Trump li tax Trump Trump tuddee ni nu ko neex démocratie moo tax koo wax mu ni démocratie la damay lal fi ma neex démocratie la damay tànt mm-hmm. <coughs> léegi nan nga koy def ba nan ko dindi xanaa kon da bëgg ñu am fi benn état policier bu rek la. non pas mais tante bokkul ci tante bokkul ci dundu àdduna tant mbedd mi bokkul ci dundu àdduna hmm. lal ci mbedd mi bokkul ci dundu àdduna bokkul ci ñun noo ci indi saw ci mbedd mi bokkul ci dundu àdduna ñun noo ko ci indi gaare sa oto plein bokkul ci dundu àdduna ñun noo ko ci indi oto bi dafa am fu mu war a gaare dafa am foo war a saw dafa am foo war a tante dafa am yoon woo war a jaar voilà le problème mais doo yeewi say xar ndakaaru ñi si yeewu war nañ cee mën a wax ndax épave yi bëreeti nañ xam nga amoon na temps le daan na def pavage di dindi épave yi mu fay durer des années te kenn du ko fa jëlee fi mu nii nag bëreeti nañ ci dëkk waaw dégg naa démb ñaari xale yu fo ci oto ba dee fa moom oto bu ne ci koñ bi am na fi vingt cinq ans borom té do nekkatul oto. vingt cinq ans état bi toog di ko xoole mu euh, France da ngay boo toogee dix minutes sa oto jëlee ñu lonk ko yóbbu. yonk mhm. lonk ko yóbbu. fii oto bi dana def vingt cinq ans. Mhm. dootu nekk sax oto. Mhm. ruu nekkatu fa ak weñ nekkatu fa weñ gu baax gu jar cent franc nekkatu fa. mais ñu wàcc ko foofu état bi toog di xool dañu war a wut. benn système boo xam ne bii loolu rek ay liggéeyam xëy lonk oto yi yóbbu lonk oto yi di ko jal fa barab lonk oto yi di ko jal fa barab fu ñu fekk oto bu gaare lu fukki fan ñu lonk ko yóbbu raxas dëkk bi raxas raxas raxas dañ ko war a raxas loolu mooy yoon xam ne fekkee nga jamonoy euh, Senghor euh, ah, ah. Khrouchtchev Khrouchtchev Khrouchtchev Khrouchtchev Khrouchtchev waaw Khrouchtchev muy wax may dégg may jàng Kennedy muy wax may jàng ma dégg De muy wax may jàng may dégg waaw nitu démb yooyu daal ci ci gàttal euh, nga def référence bu bëri yoon ci président Mamadou Dia Mamadou Dia nag ñun am na lu ñuy jàpp ci moom muy problème coup d'état boobu wala dualité moo ko président Senghor ba ñu jël ko teg ko ci kaso bi à part loolu vraiment euh, vulgariser ñu leneen lu mu liggéey wala benn apport boo xamante ne na ko ci état mais état bi bu dee dem ba léegi fii ñu dem nii yoonu Mamadou jala xam nga ñu ngi naan euh, ren lañu soog a am un million quatre cent tonnes. mais mais 62 am na un million so un million euh, kii. ci gerte ci gerte. Hmm? gerte googu moo daane Mamadou Dia. nan la ko daanelee. ah. gerte gi tubaab yi bi ñu jëlee indépendance dañoo daw wàcce ñu fii ni bëggatuñu seen gerte. Hmm. jël seen i bagage daw ñu wàcc bëggatuñu suñu gerte. fekk gerte rek lañ daan béy booba taw bi dafa bari ñu béy mille quatre cent million quatre cent amuñu fu ñu ko jaayee Mamadou Diagne danaa jaayee gerte gi danaa dem Russie mu daal jël daal di jël avion dem Russie eh boobu Russie boo tuddee Russie ni dañ ko def ni ku ku ku ku jige posan noonu la defoon Russie ku tudd tur wi rek Russie ku tudd tur bi rek ñu ñu jàpp la tur bi donc ku tudd ñu jàpp la noonu lañ defoon parce que c'était la guerre froide moom du jot dem ba wàññeeku bi mu wàññeeku mu jaar France tubaab bi sàcc cartable bi mu yoroon wut beneen cartable bu ni mel teg ko fa dem jël document yi photocopier ko delloo si cartable bi jox jaa cartable am ma nee demee te yëgu ci dara moom. ah kay fi nga dal mën nañ ko. Hmm. mën nañ la dalloo fii. nga ñëw di réunion ñu wàcc la cartable bi fii nga toog di réunion. Hmm. nga wàcc di tëj bi. waaw gisuloo avion léeg-léeg nga dégg ñu la avion bi déparé gul. xam léeg-léeg nga gis fees ñu la déparé gul. boobu am na lu ñuy seet ci walis yi ay dañuy dugg ci sud bi ubbi ko. am na ku ñu topp di ko seet. waaw dañuy ubbi ñun la avion bi déparé gul. boobu fekk na ah, y a yu dugg ci biir pour xool bagage pour xool bagage yi xool bagage suuf Ibrahima Diop mhm. bu ñu xoolee bagage Ibrahima Diop photocopier ko gaaw en ay sorciers la ñuy doon daal di koy teyaat noonu la ñu def Mamadou Dia alors De Gaulle ndeysaan ñu daal di koy def noonu saan mu wàcc ak cartable bi bi mu wàccee rek ci lañ ko fexe daane ko ci lañ ko fexe daal di koy jaxase ak Senghor ni communiste la communiste la ci lañ ko fexe daal di koy jaxase ak sengoor

Euh, artist boo xamante ne bind nga texte yu bëri am yu bëri yoo xamante ne euh, kàllaamay wolof def nga ko ci euh, riime ko Sénégal du ci wàllu koom-koom rek nag la ñu amee jafe-jafe lompañu ñu ci foofu ndax même ci wàllu aar ci lompañ ndax bind bi texte yi léegi des na bu baax rawatina si ñi waaw man léegi nag ñuy woy man dama leen xaw mere ndax woy da nga koy woy ñu lay aw woy da toog bind ko bëreetul de nga xam ni mën nga ko jàngale ci école waaye yuuxuy dem rek jël micro bi yuuxuy dem rek loolu doo dootu woy loolu loolu dootu woy woy da ngay toog noonu lañ daan def dañ day toog bind ko bind ji bay woy Johnny Hallyday wala Henri Mathias nga bind ay wayam di ko woy di ko toog sa néeg di ko woy mais léegi amatul woy da koy bind waaw nga ni li ma bind defe naa li ma jëkk a bind ci wolof maa ngi ko bind en 66 euh, kooku mool nañ ko def nañ ko benn téere ndax dama toppoon société bi yi ngay wax yi nu fi wax yëpp ma def ko ci li ci téere di tour ndox ak dawal bu bon ak les accidents l'argent les fêtes ci laa bindee woon euh, détournement yi maa ko bind 66. Mhm. di wut palaas ba am palaas. nga topp noos gi bañ a liggéey yor capital wër di ko taal ci mbiri baal ak a dimbal walay mbaxal mm-hmm. ñu jox la kees nga sol ci sa poos ba police ni la nuus nga jaar police buur di la laaj nga fay xalaat bàyyi salaat ak liminaat mm-hmm. nga bàyyi faatu dootoo seetu dootoo seetu xanaa di seetlu alors. yooyu ay rim la. en 66 en 66. Mm -hmm. on m'a accompagné mhm. je peux dire même que le de ça. parce que ces rimes là ont été enregistrées dans des cabines à l'étranger où des confirmations en Allemagne wow. yooyu nga def le rap n'était pas encore né mm-hmm. en 66. très bien waaw waaw mais am na fu mu jógee am na fu mu jógee. Mm-hmm. am na fu mu jógee parce que tout ce que tout ce que je te dis là. waaw s'il est accompagné de musique ça ça donne du li nga naan euh, dëkk bi ci wàll politique parti bu tuuti amul parti bu néew doole am. waaw waaye itam xam nga rek doole gi bëreetul ci ñëpp. waaw c'est vrai. ba ngay war a am ensemble bu mën ak awukat. tout à fait tout à fait non seulement par ça mais xam nga bon. ku ma fekk may dem ci cabaret di woy day doy waar kii téere la bind na ñeenti téere ak ñetti pièce pièce de théâtre kii jéeri joor la mhm. les derniers la bataille la de Ceddo la dernière bataille de Ceddo mhm. jéeri joor jéeri debbo suka jur baayam samba yaaya samba yaaya demel la moo reen commandant bi ci ci Thiès dama ko déposé booba ba tey ba ma ko bindee léegi mab na fanweeri at benn lañ ci euh, rajo Sénégal defar muy la bataille de Guilé filmé nañ ko mu des la mort de Samba Lawbe ak Jéeri Joor mhm. kii dama ko déposé ci grand théâtre ma dégg ni Macky nii les grandes pièces nañ ko joué ma dem déposé ko grand théâtre mhm. ñu naan ma ni tey ëllëg suba yéegal wàccal bul dem ñëwal daa waaw voilà donc waroon la nit ñi ni ñuy liggéey. <laughs> nga toog seetaan leen. ma toog seetaan leen mi ngi nii moo koy wan màkki bëgg naa ñu joué ko. ci mënee dara na ko def. ah ndax ñu ngi fay suñu xaalis. mbaa di nga ko fay <laughs> communication la de. ah. waaw <laughs> de toute façon mu ngoog. d' accord mais kontaan nañ bu baax El Hadj Ibrahima Masseck Diop toog ak yow waxtaan ndax Sénégal lii la ñu laaj tamit. bu ñu nee euh, tey démb a tax ñu naan tey kon nag boo ñu toogalee wax ñu ci démb daf ñuy amal solo lool émission sotti kontaanoon nañu lu ci toog ak yow nga ñëwaat ci démb ñu gën a mën a dëgëru ci tey ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw xam naa xam naa xam naa xam naa euh, affaire bi euh, gàtt na waaye baax na ndax am na solo trop. Euh, toog ak yow dafa may neex ndax euh, ñi ngay doxale sa émission c'est important sa yar aussi c'est important te loolu lu baax la lu baax la lu am solo la na nga continuer ci boobu domaine te Walfadjri aussi ku taxaw nit ñi la li may xamal daal mooy dañuy def benn anniversaire mhm. Lat Dior ñu ngi koy def le premier le deux le trois novembre mhm. réew mépp lañ invité chanteur yëpp lañ invité premier jour bi dañuy def euh, kii journée médicale faj réew ma deuxième journée bi dañuy wàcce kaamir troisième journée bi dañuy def cérémonie officielle ñu ngi koy defee cilmaxa deqale lañu koy defee léegi ñu ngi invité ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp invité nañ chanteur yëpp ñëpp dinañ ñëw incha waaw xam nga euh, ma wax la fi dara parce que ñu bari xamuñu ko euh, ku mel ni Wally mhm. xam nga fi mu dëkk damee la leen di nommé dameel mooy nommé euh, waa Mareen. waaw dameele leen di nommé. ba ilaa mi diini ba jant bi fay. waaw ku fa ne ku moom dëkk ba. Mm. sekk lay sant. keneen mënu ko moom mooy foofooy Mareen. boo ñëwee ba Pekes nga ne ani Mareen ñu la Mareen. ñu woon la dafa am lu ñu daan def. Mm-hmm. dafa am lu ñu daan defal dameel. kon nag fara Mareen waaw bu nit ñi dajee dafa am lu ñu dafa am lu ko dafa am lu muy defal dameel bu nit ñi dajee. dajee. waaw te loolu ñoom ñoo ko aay. waaw ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom. ñoo ko moom waaw ku sant ku sant Seck rek mooy doon maar Faramareen. waaw maa ngi lay gërëm bu baax. waaw waaw jërëjëf moom xam naa ni daal. maa ngi ah, maa ngi invité ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. ñëpp danañ ñëw Sénégal danañ la invité danañu invité Sidi danañu invité vraiment kontaan naa trop trop trop trop. jërëjëf mbay wax makki nag ni ko euh, fawoon ñëwoon ñakkoon. Ah. la mu waxoon maa nga ca may la ma waxoon maa ngi ci. <laughs> waaw jeex na loolu loolu. waaw <laughs> kàllaama la. kàllaama la waaw kàllaama léebu la bon. waaw kàllaama ay ca bon. ñu lay jaajëfal bu baax. jërëjëf Ndeya jërëjëf Ibrahima Masseck Diop di jëf auditeurs ak téléspectateurs yi doon teewlu seen émission sortie jaajëfal bu baax suma xalifa El Hadj Saliou ma tee fépp ñu ngi koy jaajëfal ci taxawu bi maanaam ci wàllu production bi du ñu fàtte bu baax euh, René Charles Fall mi nga xam ne moo aajo montage bi di jaajëfal oustaz Assane Diouf ci coordination bi mbokk yi jàngeen jëf jox leen rendez beneen ay bës ci beneen émission sorti incha allah.